Assalamualaikum suñu mbokk internet yi ñuy xel seen site bi di wanama.info ak suñu chaîne YouTube bi di wanama TV Sénégal Nek ci nakar ak tis gannaaw bi ñu annoncé rek gennuk aduna ki di El Hadji Badara Diagne ñu gën ko xam ci Golbert Diagne mom nak wuy dina boromam guddi alxames gi japp aljuma gannaaw nak bi nga xamanteni ni daan nañ faral di gis ay post ci Facebook bi ñuy annoncé ki nga xamanteni ni rek mom moy di El Hadji Badara Diagne dafa ko rek tay nak suñu borom def na li gën ci mom ñukoy ñaanal fa mu jëm happened si waye nak buñu fatali ko mom gor ber jañ mom non mu nekkon nit ku nu ragne lol ku sénégalais yi lol beggon ko lol ndax xoromam ak njambartem waye nekkon ko xamanteni ni dañ ko ragne bir Saint-Louis ndax ay jëfëm yu rafet ak jàppale gi nga xamanteni rek daf ko amone yéene pour jàppale ko rek ñi nga xamanteni ne ni rek ñom ñoo nekk sa ndar ak fepp ci Sénégal nekkon ko am yermandé ku bëgg Sénégal ku bëgg askanam ba tax mu daldi ubbu won ben radio daldi koy tuddé Teranga FM si kaw nak sila si la jàppale ñu bëré bëri tay fi ci suñu réew ba fu fu ñu taxaw ñu dégg leen bokk na si ay directeur yoo xamante ne ñi ngi amal seen ay société ak ay rajo bokk na si ki nga xamante ne nii tey moom moo di Bougane Gueye Dany nekk directeur général bu groupe des médias ak actuel directeur bu publication bu l'observateur Alioune Badara Fall euh, Ben Makhtar Diop ex présentateur du journal Sud FM Momar Alice Niang Mariam Senghor Seydou Guissé Kalidou Dia Jean-Pierre Ngor Gakou bu nekk RTS ak Moussa Ousmane Diagne Colombo bu 2STV bu Saint-Louis ak Mohamed Nabi Silla bu RFM Saint-Louis mayor Faye membre comité directeur du PDS Mamadou Aïcha Ndiaye correspondant du Soleil à Bambey ñooñu nga xamante ne rek lim na leen jaar nañ ki nga xamante ni rek moom mooy loxoy Golbert Diagne yàlla na su yërmande suñu borom wàcc si kawam ñu ngi koy jaale nak askanu Sénégal rawatina ñi mu bokkaloon milieu bii di moom Golbert Diagne nag nekkoon waajuru Malal Diagne bu nekk TFM ñu koy jaale askan wi yëpp. سلم تكن لي من ويا بنفسي بتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استراي استراعيك خدي تصر رم إلى الجماعة يا الله